الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أفضل الخلق سيدنا ونبينا محمد الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunu mbokk ñi nga xamanteni bi ñom ñoy ñooy seetaan Tivaouane TV ñi ngi jëkati nuyo yu sel di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nuyo bi ma sha Allah taala ñu ci jital al khalifa al am li taifa at tijaniya al sheikh al murshid al alim ahmad tijani al maktum ayyadahu Allah wa nasara wa atala baqaahu ñu ngi nuyu sunu kilifa sunu xalifa sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum yal na ko fi yàlla yàggal te may ko wér moom ak ay rakkam suma wayju Pape Serigne Hadj Abdoulaye Sy Al Amin Pape Serigne Mbaye Sy Mansour Pape Serigne Hadj Malick Sy Maodo ak mbooleem njabootu Maam Cheikh Al Hadj Malick yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di la ñaanal yàlla di ñaan yàlla émission bii ñu commencé ci Tivaouane TV yàlla na ko yàlla mottali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni que li ma waxtaane rek mooy dellu si àdduna mënul jag te xam-xam amul àdduna mënul dox mbokk yi te jàng amul diine dana koy jàng moom la waxkat bi di wax toujours naan ad diinu bil wax yi laa bi diine yàlla moko ko waye du lo xamanteni ni doomu adama moko meuna xalatal bopam motax tay ma sha allah taala ñu andil leen ben waxtaan bo xamanteni bi mi ngi mi ngi bokku ci melokan yi nga xamanteni bi shaytané seytaane yi kat man shaytané suma marchandise la waye amna ñu mako jaay xam ngeen ni bo démé dëkk bu nek amna bo démé marché yàpp fa dañuy jaay yàpp boo demee marché du poisson fa ñuy jaayee jën nga dem ca marché des légumes fa nga jëndee légumes mais seytaane nee na am na juróomi marchandise yoo xamante ni bii moom laay jaay mais néew ma sax man moom laay jaay mais marchandise yi jar na ba am na ñu ko jënd kon boog bidaatu seytaane xamtatu asnaafin seytaane nee na am naa juróomi marchandise mais benn bu nekk nag. amna ko ko jënd mbok yi sheytane bu amé lu mu am diko jaay wax ni amna ko ko jeund ba am ko ci kërëm loolu mat na xam ñu xol ba xam ñun kan mo ci am ben wala ko gis ku ci am ben nga xam ni sheytane mom yàlla mo ni inna ash-shaytana aduwun lakum fattaxidu aduwa yàlla mo ni sheytane seen non la na ngeen ko jàppe mu nekk seen non sa noon nag bu dee am lu muy jaay ku ko jënd rek yaa ngi ci musiba naarulaay seytaane nee na am naa juróomi marchandise yabiuha min qawmin maarufin nee na maa ngi koy jaay nag ay ñoo xamante ni bii ay kilifa lañu ñu xam lañu ñi ma koy jaay ñëpp kenn du ci baadool kon nga xam ne jikkoy seytaane melakaadu seytaane am na ay kilifa yu mu ciblé topp leen شيطان نينا بيتي نك الحسد نينا امنا بن مارشانديز بو ني واخ انيان مانكوي جاي دي واي امنا كوكو جند با ليفر ناكو مينتي بوشام ني نكو بان لا مون موي موي الحسد واهلو العلماء نينا نيغا خامتني بي ньо جند انيان موي يين بوروم خام خام واهلو حرفه الواحده مسلمين وغير مسلمين nee na am naa kiiñaan waaye maa ko jaay yenn boroom xam-xam yi xam nga dama wax ni am na yenn boroom xam-xam yoo xamante ni bi kenn mënta am ci ñoom xam-xam danoo jàng ba pare am xam-xam waaye bu néeg am na xam-xam ñu ne eh, lam yu rëy na de waaye mën naa wax de waaye wala ñu ne ak a yeewu waaye néew na boroom xam-xam seedeel boroom xam-xam ni moom xam-xamam waaye fa tabaarakallaahu waxuma ñëpp nag waaye am na boroom xam-xam yoo xamante ni bii boo leen fekkee ci tànt wala ci mbooloo ñu jël seen cër jox la boole ak sa cër waxuma ñëpp nag ndax euh, euh, li ko liñ naan règle bu ne am na am na exception waaye am na yenn borom xam-xam yoo xam ni daal wax dëgg yàlla mënoo tudd mukk borom xam-xam seen kanam ban wax moom lu baax mu ne ak ñi nga xamante ni bii benn métier la ñu am. ku am benn métier doo bëgg mukk sa côté keneen def li ngay def par exemple bu ñu amee ki tey ci koñ bi benn cordonnier muy liggéey ay dàll dàll yi rafet lool ñëpp di jëw ci moom di jënd dàll mu dema dem ba si yàgg ba jën waaye ñëw à côté di def lu mel ni moom li muy def boo moytuwul rek iñaan dugg lu tax parce que nit dafa jaloux fiir yaa googu am nag moo tax iñaan di am waaye seytaane nee daal amna ak ñaan neena amna yenn borom xam-xam yo xamanteni bi ñoo jënd ak ñi xamanteni bi ni bii benn métier dong la man ku leen ci fekk nak ñu kulok yow mo xam dafa dafa nek ay julit wala mu nek ay yéefar motax mbokk yi iñaan yàlla mu ne am yahsuduna naasa ala ma atahum allah min fadlihi ndax yow nit da ngay fekk benn nit bo xamanteni bi yàlla moko jox terangam amuloo looy def benn nga ne day jaay drogue wala nga ne dealer la wala nga ne sax day day def tabdiil pourquoi iñaan gi am loolu lay laaj te arab ne alxasuudu laa yasuud ku iñaan du nekk sang seytaane nee na iñaan maa ko jënd jox ko ñenn ñi mais dañuy wax yenn borom xam-xam yi mais am na ki réew mi ñoo xamante ni bii iñaan moo leen di bëgg a rey lu waaye am ci teraanga nga ni pour lan mu koy am te mbokk yi nañu xam ni iñaan dafa nekk marchandise seytaane nee na am na ñu ma ko jaay kon ku xolam ku képp koo xamanteni bi xol bi am na ak kiñaan na nga ko dindi mu ne ñaareel bi al kibru wa ahluhu al anzal wa wa man laa xayra fiihi min al muxtaqirina inda allahi wannaasi ajmain mu ne ñaareel bi nag mooy rëy seytaane nee na am naa benn marchandise mu ñuy wax rëy maa ngi koy jaay waaye am na ko ko jënd ci man ñu ne ko kan la mu ne mooy baadoolo yi ak ñi nga xamante ni bi seen xel yi dafa dese xam nga rëy rëy loolu la wax rek nga yaakaar dan laa xeeb te ñi ko fi dàq nag mooy al anzal mooy li ñuy wax ñi amul dara ak baadoolo yi tey boo amee benn gan fii ci sa kër nga teg sa table Euh, ci salon bi wala nga teg sa fauteuil mu ñëw ferenkulaay ci kaw nga ne ko waay sa waay wàññi sa tànk yi xam ma lu ma jëkk a wax léegi danga maa xeeb léegi am ga xaalis dima jaay ñi ah dima jéem a toroxal mbokk yi ay fauteuil ay tànk table du ay tànk moo tax rëy baaxul nit nag dafa war a modeste oyof waaye seytaane nee rëy maa ko am maa ngi koy jaay ku ko jënd nag mooy ñu amul xam-xam ak dofi ak ñi nga xamante amuñu ben tiyabo kon yàlla mu ne reuy sama yére la mag sama mbalaan kep ko koo xamante man yàlla yaa xëccok man sama yére ma yobul bir safara yàlla rek mo wara mo wara reuy da gis sax yenn ci nit ñi ñëw ci mbolo ñëpp tok ngani man buma amul fauteuil dima tok wala nit kiy jóg ma tok Seydina Muhammad haythu taha majlisun kanu juutu lahu Seydina Muhammad mosaan di ñëw ci mbooloo lu mbooloo ma bari bari bari bari bari bari fa mbooloo yam fa lay to waaye mbokk seytaan nee na rëy maa ko am jaay naa ko yéen nit ñi ban jënd ko kon nga xamante ni seytaan nee na ñaare nga noonu la ñetteel bi wal jawru wa ahluhu al muluk wal uzama wal umara wa awanuhum min al fusuqa al zalimin nee na amaat naa beneen marchandise boo xamante ni man seytaane jaay naa ko ba mu jar xam nga lan la aljawru mooy jeng aljawru ak caay-caay nee am naa ko ba mu fees dell waaye am naa ko ma ko jaay ñu ne ko seytaane koo ko jaay mu ne ak caay-caay maa ko jaay yenn buur yi gis nga buur seydina muhammad ne ren sinfaani min ummati ida saluha saluha annaas wa ida fasada fasada annaas al umara wal fuqaha yonent bi nee am na ñaar ci réew mi ñoo xamante ne bii bu nu baaxee réew mi yëpp baax waaye bu nu bonee ñëpp bon mooy buur yi ak boroom xam-xam yi buur bu saay-saay ci am réew mbokk seytaane la ak koo xamante ni bii kilifa la am alal ba pare jeng wala ak njiit yi ba pare saay-saay xam ngeen ni bu ñu amee njiit bu dëng réew mi du dox waaye fa tabaarakallaahu ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla mayee ay kilifa diine yu baax may ñu ay buur yu baax kon réew mi incha allahu taala ca kaw ca kanam rek waaye jeng ak dëng ak caay-caay seytaane nee na nañ koy xool ci buur yi xam nga ni buur rek a man leen di xool nit ba mu neex ko mu ne kii neexuma naa ko sacrifier ci wàllu doole walla ci wàllu alal léegi-léeg ba dégg borom xaalis bu naan diw boo ma fontoo danaa la duma te sama loxo du la laal bàyyi ba guddi nga fay ay nit ñu fekk ko këram yóbbu ko àllaaxira wala ñu fekk ko këram bàyyi ko ba mu tëdd ak njabootam ñu pendre ko walla ñu def ko lu bon loo xamante ni bii yow yaay cause bi pour lan mu ne nag jeng ak saay-saay yenn buur yee ko moom ak borom alal yi nga xamante ni bii ragaluñu yàlla seytaane nee na loolu man yaa maa ko moom mais am naa ñu ma ko jaay kon bok bok yi ñu xol nit ñi dund na kenn ku nekk déglu ba xam seytaane yi muy jaay ban nga ci am bo ci amé ben gaawal delloo ko seytaane bo ci amul ben nak santal yàlla gor gol nekk ci lu baax seytaane neena amadna amaat marché beneen bu may jaay ñu ne ko ban la mu ne al kaydu wa ahluhu an nisa wa duafa min al wushaati wan namamin nee na am naa beneen marchandise man seytaane bu ñuy wax ay pexe pexe ku ko moom mu ne jigéen ñeem ay pexe xam nga jigéen moom bu la bëggee bëgg laa moyloo yàlla bu la yàlla dimbalewul billaahi nga laal suuf moo yàlla bind seen bind leen ba pare ne inna kayda kunna azim inna gis nga inna fa indi inna ba pare indi nuru tawkid inna kayda kunna naka pexem jigéen ñi azimun pexe mu rëy la jigéen kum fexeel nga mucc ji yàllaa fa jaar kon mu ne jigéen pexe ñoo ko man dañuy li ma wax benn xale bu jigéen ma ne ko yéen li ngeen man man ngeen a jaay ñaari ñaari bërigo diwu tiir sol weex tal te du ci tàq moom danoo bari ay pexe góor gu nu pexeel moo xam seen jëkkër la wala nga nekk jàmbur ci ñoom wala ñu bëgg laa daaneel buñ la pexeelee bu la yàlla dimbalewul nga laal suuf kon moo tax jigéen moom dañoo bari ay pexe bari pexe bari pexe boo sa bëggee mucc dee leen daw boo amee benn jabar dawal boo amee ñaar dawal boo amee ñett dawal boo amee ñeent dawal waaye boo dee góor te amuloo jabar ji leen jege boo moytuwul billaay léeg nga laal musiba moo tax tabaarakallaahu jigéen bari ay pexe mu ne ak wa doafa ñi nga xamante ni bi danoo doye di nit léegi-léeg mu dem ba ba du man waaye ma nga lay tëral ay plan wala sax ci sa biir nit ñoo xam lool ñu nekk say mbokk nekk say xarit nga dugg ci dara muy dox dem ba ci biir ñu bëgg naa fakastal tëral la ay pexe di la piège di la di la di la piège ba yóbbu la alaaxira tey boo xoolee jamono bii boo xoolee léegi kenn wóoratul kenn dangay am nit fekk mi ngi lay piège téléphoné la di wax ci diw fekk mi ngi lay enregistré nga wax ci moom ba pare mu yóbbu la ci diw ni la xoolaal xoolal déglu diw li mu wax ci yow ki lu bon fekk ni moom moo la yóbbu ci loolu sax mais ma nga lay ma lay dugal moo tax nit na moytu njëkku ku ko dugal ci musiba moo tax ñu wax ni nit na moytu ndiko làmmiñ dañu koy téye mu ne ak tamit rambaaj yi rambaaj baaxul rambaaj ba ay pexe rek day fekk couple bu dox jëkkër ak jabar macha allahu taala rafet lool baay doom rafet lool sëriñ ak rafet lool patron ak employéem rafet lool mu jóg di dox di dox di wax di rëbëje ba lépp jaxasoo seytaane nee na loolu man maa ko moom mais am naa ñu ma ko jox moo tax nañu bàyyi ni ko rambaaj Seydina Muhammad nee na laa yadxulu jannata xattaat rasulullahi nee na rambaaj du dem aljanna te réew mii am na ñoo xam ne ku leen déglu di bañ yàlla du ñu wax ci nit mukk mukk mukk lu baax kon pexem jigéen dafa bari kon jigéen daal moo moom ay pexe ak ñu doy yal nañ ci yàlla musal ci pexeem jigéen ñu ne ko seytaane nee na am naa beneen marchandise bu ñuy wax wor inna لا يحب من كان خوانا اسيما يالا موني من بغما كوي وور بغما كو باري اي بكار خوان اسيم موي كو خامتني دي كو سيخال وور وور نك شيطان نينا سما مارش نيد لا واي امنا كو مكو جاي ني نكو كوكو جاي موني واهلو اك تجار والسماسره التجار تجار نينا وور موم كو لوكو داك موي جاي كات amna jaay kat yo xamanteni bi bu len yàlla jappé yomal qiyamati bu len yërëmul musiba naaru allah am te yàlla wakina ben sar uniquement pour kat yi waylun lil mutaffifin alladina ida ktaaluu ala annaas yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuhum yuxsiruun yàlla mu ne yomal xiyaamati fa am fa mbugal mu ñu ko yàlla ko ko mu ne mooy ñi nga xamante ni bii dañuy wàññi balance bu dee jënd jënd lu mat bu dee jaay jaay lu banque moo ma moo am tey moo tax bari na nga gisoon ab commerçant bu am alal lool di dem Dubaay di ñëw yor ay conteneur am yor ay magasin yor lu de xëy suba teel dootu yorati dara dara dara dara dara ndax lan lekk akku jàmbur moo tax moo tax war baaxul bari na jaaykat boo xamante ni danaan jaay yor alal ju bari lool nga koy suba teel ñun lekkat léegi daanu na mi ngi leb amatul lu mu dundee à cause que dafa lekk àqu jàmbur am na ñoo xam ni boo leen ñëwee di leb ñu am benn kayit ci boutique bi su ma ñëwee leb 500 nga bind 550 wala 1000 francs su ma ñëwee. Lep, ceeb dëwlin Mew, café mu valeur vingt mille francs def trente mille yaa ngi di am alal waaye lu mu yàgg yàgg yàgg da ngay daanu ndax alal joo xamante riba moo riba moo ko màggal riba wér wér bi lépp loo xamante bi riba moo ko rek day daanu waaye bu dee dafa alal joo xam da di kon seytaane nee na wor sama marchandise la waaye jaaykat yeeg homme d'affaires yi ñoo ko jënd ci man mbokk yi ku ciy jaay na nga jaay lu mat ku ciy jaay na jaay lu baax ku ci yore ci àq jàmbur liggéeyloo nit ba liggéey ba àgg jox ko àqam waaye liggéey liggéeyloo nit ba weer wi dee nga ñàkk looy def xuloog moom tàppaat dàq ko rawatina sama mbokku jigéen ñi da ngay jël ab jànq ci kër gi lii lépp rek mi ngi dem ci wor jànq mi ci kër gi bu xëyee suba teel huit lay ñëw raxas waañ wi raxas douche yi kër gi ba mu set wecc raxas bool yi dem marché togg añ bi ataaya defar lépp weer wi dee nga ñàkk looy def jiñ ko sàcc yaa ma sàcc dàq ko mu génn nga wut keneen la même chose yow nga yaakaar ni sax yow loola ngay def nag am nga ci lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg àqam dana ma sa dal kon mbokk yi nañu bàyyi ci ko wor yàlla bëggul koy wor bàyyi leen wor bàyyi leen wor bàyyi leen wor nit sama wor wax ak sa mbokkum jullit sa mbokkum gor ba fas xëy suba teel nax ko turiyaande ko dugal ko ci musiba naarullaahi boo xamante ni bii dootul amati dara dara dara dara dara ndax lan yaa ko wor kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla bëggul kuy wor bëggul kuy tas yaakaar mbokk yi euh, nit pour mu mën a nekk nit ku nit ku mat nit ku mat jubóog sa borom subhanahu wa taala te mooy lan dund fii ci àdduna jubóog say mbokk dee jubóog yàlla dafa am luy tax nga am ko motax tax gu tedd gu ni wax maam alxaaji Mansour si ibnu Cheikh alxaaji malik dafa am ben qasida bu bind neena aduna àdduna lu ko yàq te mana yak société moy beug njit may jitu may nek ilimanu jakaji wala ma yak jakaji may nek président daire wala ma yak daire bi may nek chef de quartier wala ma yak koñ bi maay nekk président association bi wala ma yàq ko mam mam alxaaji Mansour nee na xubba riyaasa da wal tashtaxil abadan bima yadiduka inda allahi min sha'ni góor ga nee na nit da ngay bàyyi bëgg njiit maanaam daa xubba riyaasa bàyyil bëgg njiit yow nit xam nga soo bëggee njiit di nga fen di nga wor di nga corrompu di nga def loo xamante ni bii lépp lu yàlla bañ la pour falu mu ne bëgg njiit pour lan bëgg njiit te alquran wax ne yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim imaam yawmal qiyaamati am am na responsabilité bu nga ni man kat faaw ma jiitu maam alxaaji Mansour nee bëgg njiit day yàq wal tastaxil abadan na soxla woo toujours yow nit bii maa yuziku indallahi min shani loo xamante ni bii daf lay yokk ci yàlla boo xëyee suba teel na góor góorlu ci ñaar dërëm ci sa poos yiw ci bàmmeel liggéey ba mu liggéey bay bëgg a dee ak jaamu yàlla mooy adduna de amul leneen adduna moom boroom xel ci ñaar lay dox liggéey alal pour dundee tiyaabo ci bàmmeel lu dul loolu ya ngeen ci ay caaxaan mama Hadji Mansour ne doomu aadama maa ngi koy ñaan na lu ci lii ma ko wax ñu ne ko maam alxaaji Mansour ne ba léegi am na beneen boo xamante ni ku ko def léegi nga àgg ci yàlla ndax man xool naa jamono bi gis naa nit ñi li tax kenn àggul ci yàlla kenn mun a avancé xool yi moo bon xool yoo daal bala ngaa kontaan gis sa morom ci torox tàngi bala ngaa kontaan ñun la diw dàq na ko fi doon liggéeyee bala ngaa kontaan ñun la diw daanu na bala ngaa kontaan ñun la diw dafa feebar pour lan ماما حاجي منصور واخني وطهر القلب من حقد ومن حسد وكل وصف زميم بين اقراني غورغنينا سا قلبي نانكو لابال نانكو فوت تي مبان تي بان نيت ني ما بان ديو ندخ لان مان دا دا ما ديو نيهوما ماكو بان ندخ لان مي بور لان ياو كي غاي بان يورو دوندم يورو بكانم يرو روحم يرو لكم يرو نانم خيرك بانكو برلان تا بان نيت داي تاخ دو اك تي يالا نياارل بوي نينا ماغي لاي ميتو لوكو لو انيان موي بين جانغون ليغي بارينا كو ياكولي انيان مولا ياكال بارينا كو مونتا ديم انيان موتاخ ديمولو باسكو نك آه، آه، آه، اعمل ما بدا لك فكما تدين تدان دفل لولا نيخ loo lépp lan lay fay kon nee na na nga bàyyi ni ku bàyyil mbañeel gi bàyyil iñaan bi nee ak bàyyil bépp jikko boo xamante ni bii dafa bon ci yow jikko boo xamante ni bii mag ñépp maas gépp bañ lañ ko bañal jikko yooyu leen nit dafay moytandiku yooyu leen nee nag na nga sa làmmiñ ku fal lisaana déggal ku lisaana ما حاجي مانسور نينا نيت ديل ما كي تا ما حاجي مانسور واخ دون سيد حاج مالي واخ نكو سي بام بكسي واخ نكو مبولم نيت يالا ييب داكور نان ني لامين موي ياك ادنا واخ رك القران واخ ني بو ديمي بو بيسا گيمين دي واخ دارا واخال لو وقولوا للناس حسنا بو ديمي بو بيسا گيمين دي واخ نيت ben nga ni kat damay wax ci euh, diw waxal lu bax waxal lu bax waye yow bala nga contane rek nit ñi nga nek sen der yi lu bon lo xam wax ko lolu jikko la boo xamante ni bu ñaaw la mu ne sa làmmiñ bu ko boyal ci ay caaxaan làmmiñ boo xamante ni lu muy agné deri gorñi lu muy réere deru gorñi ñi lolu lepp tabarakallah da fay yakal nit day tax do ag ci yàlla tabarak wa taala mbokuy aduna bi kuko ko jàppe kër amuloo kër ana seydi haj malik ayna man sadu wa shadu wa banaw halakal kul falam tugni ruxudal nee neena ana nga xamanteni ne bi ñoo tabaxoon tay fondement yi grak seli immeuble ana firawna ana namrud ana kanaan ana daawuda ana sulaymana ana nguur ya ñoom dem nañ kon jubo ak yalla tabaraka wa taala tay ñuy waxante lu baax rafatal njott yi defante lu baax waxante lu baax loolu mooy tax aduna bi mëna a waaye seytaane moom daal taxawu na jon sama juróom yii nee na bari na ku ci am benn mbokk yi dugg sa néeg ne man seetlu naa ni man damaa iñaan nan laay def ba dañ parce que jàngaral joo xam ne dañ koy faj xam nga dama wax toujours xale yi ma ni leen euh, médecin bu la xoolee ba xam ngi la daal defal la radiographie wala ma defal la scanner defal la lépp xam ngi la daal wax ji jaratu ko mooy li muy def lan mooy lan jéem a faj maladie bi boo amee ak ak iñaan mu nekk ci yow jéem koo dindi yàlla mu ne iñaan ak mbon maladie la da nga koy dindi wa man yuuqa shuxa nafsihi fa ulaayka hum muflixuun alquran nee na ki nay wala mu soxor wala mu iñaan dafa nekk benn benn pont ci xol bi na ko seeb bi sànni mooy lan boo dematee bay iñaan na na xalaat yàlla teg ñel waa man ki may iñaane su sax ma ko iñaane pourtant lii mu am yàlla moo ko jox lii mu am yàlla moo ko may kon boog mbokk yi iñaan baaxul soxor baaxul bàyyi wor bàyyi fex ay pexe bàyyi ay euh, bàyyi ay euh, jeng bàyyi ak caay-caay te ñu moytandiku rëy baaxul rëy baaxul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ku oyofoon la sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad sàmm na sàmm Seydina Muhammad dàq na daax daax ñaw yéeram xott ko na mu ñaw ko war na mbaam bale na togg na war na giléem war na fas nit dafay modeste waaye na gàng ca kaw di nganda ngandalu naan nii laa toll billaay bala ngaa xam ni doo dara bis dana ñëw ñu ne anamu ñu ne mi ngi ñuy tëdd ñu sang sang tëral suul ana nga tey jeexul kon mbokk yi nañu wàj wàcc wàcc oyofal suñu bopp xam ne nit ay ñun ay nit lañu di jaamu yàlla ni ko yàlla bëggee te ñu baytu ndiku nag jikko yu ñaaw yooyu la moo tax jamono bii boo ciy dund waykat ba nee na jamono bi boo ciy dund kaay ma xamal la li ngay def ngërëmal nit jarul sàkku ndax nit ñi ñoom liñ la mënal mooy loo def ñu sikk la loo def rek ñu sikk la

لقد سألت